Bonjour tout le monde, je vous présente euh, notre association Docteur Nakamu, qui est une association qui lutte contre les maladies non transmissibles à travers le sport et des émissions qui donnent de bons conseils sur l'alimentation et comment faire le sport pour lutter contre les maladies non transmissibles, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle et bien d'autres maladies. Donc, euh, je passe mon ami parce que la communauté, elle s'est bien agrandie et partout à Dakar. Donc, euh, va faire la présentation de la communauté de, Gambie. Assalamu alaikum Dr. Nakamu Gambia, which is one of the Dr. Nakamu communities uh, that spread around the Senegambia. So uh, my community started in 2019, that's last year, about six months old. We, joined the fight against non-communicable diseases promoting exercise to combat diabetes, hypertension, and the other non-communicable diseases, and also exercise and its way to boost the immune system to fight against communicable diseases too. So um, I'm here to represent the Gambia community. membre de la santé. Euh, association docteur mu nag ñi ngi ko créé depuis 2015 lu tax association bi jóg mooy dañoo seetlu ni que lu ñu naan maladie non transmissible maanaam feebar yi nga xam ni ko du waale boo demee ci données OMS yi ak yi ñu am fii senegal boo jëlee fanweer euh, décès yu am fanweer nit yu dee yu nekk. Euh, ay tension la ñuy deeweek wala jabet donc mu ëpp lu muy rey que li ñu naan feebar yi nga xam dina wàll léegi association docteur naka mu gis loolu nag ñu jóg ñu ni ah war nañ mën a apporter dara suñu communauté ñu xool maladie yooyu noonu lan moo ko war a mën a joxe te maladie yooyu lu koy joxe mooy li nga xam suñu nekkin suñu mode de vie donc loolu la association bi jóg euh, taxaw si mu taxaw si ñaari point nag Euh, ñaari fànn yu mu taxaw mooy ci wàllum yëngatu bi ñu naan ko tàggat yaram ak euh, lekkin bi donc mu nekk ñaari facteur li ñu naan facteur de risque yi nga xam ne ñooy yombalal feebar bi ñaari point yooyu noonu la association bi taxaw di ci xeex euh, kon chaque dimanche ak yeneen communauté ça dépend seen calendrier daañu organiser ay activités sportives nit ñi ñëw kenn du fay dara nga tàggat sa yaram en même temps daañu def ay émission rajo di waxtaan nit ñi si feebar yi nga xam du wàlle ak Euh, alimentation bi aussi di yi ñu ngi siy def ñu bàyyi ne ne mu mun si wax li si topp. Euh, bonjour, bonjour tout Donc, euh, comme, comme l'a dit mes, euh, mes collègues de l'association Dr Nakamu, donc nous luttons, nous sommes dans la prévention et la sensibilisation contre les maladies non transmissibles, à savoir l'hypertension artérielle et le diabète. Et euh, nous, en fait, comment nous contribuons à la lutte, c'est à travers la pratique euh, d'une activité physique régulière. Donc, nous invitons les gens à faire une activité physique régulière. Et ça, c'est à travers les challenges que nous organisons tous les dimanches dans nos communautés respectives, à Dakar, euh, Guédiawaye, Parcelles, la Gambie, qui s'est présentée tout à l'heure. Et euh, vous pouvez aussi nous suivre à travers nos pages euh, Facebook, association Docteur Nakamou, communauté Docteur Nakamou. Et dans la page, vous allez trouver euh, toutes nos activités que nous déroulons, à savoir les lives de cuisine, donc euh, inviter les gens à manger sainement à travers des recettes euh, préparées par des spécialistes, des nutritionnistes qui nous accompagnent. Nous avons aussi euh, un programme pour les enfants et des lives de fitness euh, toutes ces activités pour vraiment inviter les gens à changer de comportement, adopter un nouveau un style de vie sain. Euh, nous, nous, vous remercions pour euh, l'occasion qui nous a été donnée à travers votre chaîne pour euh, présenter notre association DKR 221 et euh, nous invitons aussi euh, les abonnés de votre chaîne à venir visiter notre page et venir aussi euh, participer à la lutte contre les maladies non transmissibles. Nous sommes tous les dimanches au niveau de la place du souvenir à partir de 9h à 10h et toutes les informations, vous, vous allez les trouver dans la page Facebook. Merci.